te le vieux malade ma ñëw ci moom moom mu confirmé moo tax ma ne munoo ñëw Joal ba génn te ñëwoo jaar loolu daal mooy euh, mbir la ko su fi ñëwee nañ la ko andil. waaw président Sonko ngi nii dénk nañ leen ko gën ñaanal ko. alhamdulilah alhamdulilah. ñoo keroog lan la xam keroog lan la jàpp. jërëjëf Mbaye ba tey nii nag su ñuy ñaan saa su nekk loolu la ñu fasal. jërëjëf dina bëggee loolu nag te am si yow yaakaar. ñaan yàlla yàlla mottali yaakaar lépp lu ñuy ñaan daal noo ngi lay fasaal bëgg rek yàlla may la dem ci li nga nekk ndax li ngay wax dégg nañu ko jàpp nañu ko am yàlla yàlla mot ñu yaakaar may àggale moom mii dafa nekk boo xam ne di déglu rajo di la dégg Sonko moom daf na njëkk laaj ci Sonko ñu ne ko daa sant Sonko mais Ousmane la waaw keroog la dégg si tur waaye nag liñ naan wax bu dëggoo te am solo nopp boo ko dégg xam ne wax dëgg la dana am ci yaakaar ay fan yoo xam ne bis bi si xasida yi nga xam ne moom la xam ne mbooleem fu saay-saay jóge bëgg a dal ci kaw nit ci ay caaxaan xasida boobu mooy alak boobu bépp noon ci la sëñ Tuubaa faagaagale bépp noonu na moom na ko ci bilim di la ci ñaanal te xamul ba tey suñu borom dogal seen gisante kon moom itam mooy suñu lépp fii nag murid dañuy tënk ci kilifa moom nag moo fi nekkal sëñ bi sëñ Jibril Mbay wax dëgg yàlla ku lay bëgg la ku la sopp la ku lay ñaanal la kon yaakaar yi am teel ñun yëpp rek yàlla suñu borom def yàlla na ak barke Seexu Fatim jërëjëf li nga yóotu yaa ko xam yàlla suñu borom may la ko te mu seen gudd te mu ànd ak jàmm sa gën ci ñëpp rek loolu daal bu ko bëgg rek jàpp nañu jërëjëf suñu xel seen buñ ma ko bu yàgg suñu ko dina Allah yàlla na gën a sàkku ñaan rek ci saa su ne di am mbégte bu baax ci ndaje mu def baax na parce que di di fi ngeen ñu féete ñuy fayu ko wax yàlla ndax ku la la gis bëgg la sopp la sa jëmm taxul waaye li mu yaakaar ci yow ci jëf moo tax te boobu toogu leen gisantewu leen kooku mënoo ko fay rawatina nag muy jël taam di la ñaanal ci la fasaale bi nekk kon yal na yàlla fay leen ñëw fii nag mbégte la suñ Tuubaa moom saa suñ fa duggee rek moom mbégte la kon xam naa ñu ngi ñaan yàlla bu may a comme dañoo nekk fas yéene woon ku ñu dugg rek ci département bi mën a teg suñu tànk bu bëri waaye bëggeewu ñu ko woon nii ndax euh, fii bërëbu diine la bu woon suñuy ñëw fii ay alkaati bi ñu toog ci bunt bi moom taxuñu woon jóg desoon sax ma ne waa ji du wàcc parce que su doon beneen bërëb ma wàcc mais bërëbu diine bëgguma di ñu ñu ma fay topp ba ay taxaw ci buntu wala ñu ngi leen di sant bu baax di dellu di leen dénk suñu bopp bu baax sàkk ñaan saa su ne jërëjëf nga lu baax mu sa yomb waaw lu baax waaw <laughs> i te yaakaar ci bés bu bëri ci wàllu amin بنا صراط المستقيم اللهم لا اله الا انت وما خلفهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم